sur le plan sportif y a satisfaction satisfaction La satisfaction am que objectif de la section bi dañu gagner dañuy championnat pour gagner championnat euh, Sénégal yàlla def ni at bi ñu gagner championnat bi gagner coupe du Sénégal donc je pense que mooy ñaari trophée yu gën a yi sur le basketball local gagner nañ donc je pense que satisfaction là, donc le bilan sportif positif la donc day une occasion ñu féliciter encadrement technique si c'est seen tête euh, le coach Moustapha Gaye, bi nga xam ni directeur technique national di ko encore félicité di ko ñaanal aussi ci loolu ñu ko fal yàlla jàppale ko ci mu am ci ndam bi mu ci bëgg. sama tànk yi mooy ñëw pour euh, gunge leen encourager leen féliciter leen mais aussi gunge leen ci li ñuy def ndax def nañ ay résultats yoo xam ne ñëpp kontaan nañ ci gis ngeen ne jël nañ coupe jël nañ championnat équipe basket bi kon ñu mel noonu. neex nañoo dimbale parce que dañu naan toujours ndimbal na ca fekk loxol borom. madame la maire wax na ko nee na dinañu accompagner bu baax lim ñoo accompagner woon dina ko dolli dinañu dimbali pour ñu mun a dem représenter le Sénégal championnat d' Afrique des clubs loolu déjà mooy suñu objectif premier pour saison bi jënd na bus tamit bu bees tàq jox ko euh, section basket bi pour que no pour nos déplacements à l' euh, intérieur du pays je pense que yooyu tamit aussi ay soutien la yu am solo donc. Euh, lolu je pense que lu bax la pour pour pour développement sport parce que municipalité bi aussi rôle am dans les rôle am aussi moy que def ay action pour que sport bi jëm ci kanam. bis yi mom pour fi la ci biir rew mi moo di len di ñaan ñu toppatoo ko entretenir ko bu bax mu nek ay bis yu set yo xamne ne danañ ko sam ba du gawa a pour dem Afrique il faut que nga recruter ay joueurs yo xamne day nekk ay joueurs yu international te yoyu quand même ça demande des moyens. et que madame la maire nee na moom disponible na pour accompagner ñu donc incha allah dinañ liggéey ci loolu pour que groupe bi fi ne déjà baax na mais ñu yokk ci eh, ñeneen ñoo xam ni dinañ gën a mun a dooleel équipe bi pour équipe bi mun a dem sur le plan africain. comme que def nañ ay résultat ville aussi dana yokk lim leen doon defal. seet nu mu leen di accompagner fii au niveau national mais bu ñuy dem sur l'international aussi ñu jéem a seet nan lañ leen mën a gunge ci international bi pour ñu am Afrique am sax àddina bi s'il le faut